gaawaan ca kanam di kuréel goo xam ne bi mu juddoo ak léegi daanaka fukki weer ak benn la am ndax ñoo ngi ko sos ci tabaski 2020 bi ci dëkk bi nga xam ne moom moo di gaawaan nekkee ci département bu Bambey ci région de Diourbel ci ndigalu Serigne Mor Fati Mbacké ndaw yoo xam ne ñi ngi dëkk biir gaawaan euh, juddoo fa màgge fa yaroo fa ak euh, xam ne euh, gaawaan ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko war a defar Euh, ku koy defar itam dañ la cee war a jiitu boo ñëwee jàppale nañu ci ñu ànd ko ñu ànd koog yow. ñu dugg waaxu ba ca kilifa ga fa nekk di Serigne Mor Fati euh, laaj ko ci ndigal euh, xamal ko lii suñu yéene ci ci ci ci dëkk bi ak ci daayira bi mu jox na ci ndigal boole noog rakkam Baye Mbacke Anta mu jàppale ñu ci taxawuñu ci ba daayira bi sosu ba taxaw ba àgg fii mu àgg tey. gaawaan ca kanam xidmatul muxtaar di kuréel gu sosu ëmb ñi nga xam ne dañoo dëkk wala ñu cosaanoo ci gaawaan li lee ñu royee ko ci Touba ca kanam ndax modèle de développement boo xam ne la mën naa suqali dëkk bu nekk. dafa am bi mu sosoo dafa am kuréel gu mag mm, gu ñuy wax Touba ci kanam dañ koy tudd ndax euh, modèle de développement la boo xam ni euh, euh, lu mel nii lu mel nii ko tax a jug lii ñuy def noonu muy muy muy liggéeyal sëriñ bi. Euh, ba mu nekk kuréel gu mag goo xam ni euh, seen ay ay preuve adduna bi yëpp xam nañ ko ñun bi ñuy sosu loolu moo ñu motiver woon. ngir euh, lii Touba Ca di def te Serigne Touba digle ko senegal gi yëpp war ko def dëkk boo dem ñi Touba Ca Kanam def la ñu war a def. li nga xam ne moo tax a jóg kuréel gi moom moo di taxawu dëkk bi nga xam ne moo di gaawaan taxawu ko ci mbooleem infrastructure yoo xam ne dana koy teewoo ak jumtuwaay boo xam ne day yombal nekkinu askan wi. mooy euh, euh, liggéeyal yàlla waaw liggéeyal yàlla ci euh, gaawaan waaye jaare ko ci ki nga xam ne mooy sunu bunt ci ci ci Serigne ndax liggéeyal yàlla buñ ko waxee nun murit moom la jàpp liggéeyal Serigne Touba. te suñ bunt ci sëriñ Tuubaa nag mooy sëriñ gaawaan te sëñ gaawaan bu ñu nee gaawaan sëñ gaawaan a euh, kon nag suñ bunt ci sëñ gaawaan euh, suñ bunt ci sëñ gaawaan mën nañ ñi mooy gaawaan kon ñun ñi ñi nga xam ne euh, ay taalibey borom gaawaan lañu wala ay jullit lañu wala wala wala ñu sax dëkk gaawaan ak ak nu ñu mën a dëkkee rek ñu fas yéene liggéeyal yàlla liggéeyal sëriñ bi ca gaawaan waaye loolu du am mukk lu dañoo booloo nekk benn. nosu ngir loolu mën a am gaawaan ci kanam looloo ko sos looloo ko tax a jóg ngir lépp loo xam ne eh, gaawaan soxla na ko ci lu nit mm, war a jariñoo eh, ñu ñu ñu laxasaayu defaral ko suñ bopp ba ba bu fekkee état ko waree def itam lépp loo fa état def eh, bu ñu ñëw jàppale ko ca bu fekkee état mënu ko it ñu lax saa defal ko suñu bopp gaaw gaawaan ci kanam daal looloo looloo ko looloo ko looloo ko sos looloo ko tax gaawaan ca kanam mi ngi lawal ay banqaasam ci biir réew mi ak ca bitim réew ci mbooleem dëkk boo xam ne doomi gaawaan mi nga fa. gaawaan ci kanam euh, yëmut biir gaawaan rek mu ngi ci mi ngi ci département yi mi ngi ci région yi mi ngi ci sous région bi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi bitim réew mi ngi Amérique mu ngi mi ngi mi ngi Europe mi ngi Asie mi ngi fépp. ba membre yi dañoo tasaaroo ñu ngi ci àdduna bi yëpp maanaam weeru weeru wu dee daal 1000 francs lay doon bu fekkee da nga nekk membre bokk ci gaawaan ci kanam ak foo mën a nekk ci àdduna bi boo boo nekkut membre itam bu la neexee it euh, ngay ko bëgg lu baax wala nga euh, jullit ak foo mën a bokk rek ngay nga yëkkati sa alal ñëw euh, jox ko waa gaawaan ci kanam ñu defal la ko ci liggéey bi. fii ci Dakar ci jumaay Masaalikul Jinaan mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo di gaawaan ca kanam amal nañu fii journée boo xam ne journée jaayante la weccantee xalaat waaye leexal lépp loo xam ni dafa jëm ci liggéey bi ci jotaay bi mbooloo mi fa li muy new néew jot nañu fa dajale lu toll ci 1 million trois cent mille francs bi nga xamante ni tam leen jaayante bi ak léegi. ca gaawaan ak la ko wër. ba agsi ci ngontam tey mii. ba agsi ci ngontam tey mii. li ñu dajale lépp lépp lépp mu ngi tollu ci. li ñu dajale lépp lépp mi ngi toll ci. 2 millions. 2 millions. 350. 305. 358 mille. 358 mille. loolu lañ jot a jaayante ba ca tàmbalee ca gaawaan ba tey ci Ndakaaru. bu dee tey jii nag. bu dee tey jii nag. 1 bu dee tey jii nag dajale nañ un ak juróom-benn fukk. am na ay kilifa yu bari yoo xam ne teewoon nañ ndaje mi ci njiital Serigne Mbacke Anta mi nga xam ne moom mooy kilifay dëkk bi nga xam ne moo di gaawaan mu rafetluwaat bu baax a baax mbooloo mi ni nga xam ne noonu la ñuy doxee waaye rafet ci njort bu baax a baax. mi bi nee na mi ngi sant suñu borom bu baax. ci daje ak liggéey bii. ak liggéey bii. te di ko ñaan moom suñu borom. te di ko ñaan moom suñu borom. yàlla na ko jëme kanam. yàlla na ko jëme kanam. ba mu àgg fu kawe njort ba mu àgg fu kawe njort yi. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla. yàlla na ko yàlla ko yàlla def. waaye li ciy sunu wàll ñun nag. waaye nag nee na moom li ciy wàllam. ñun ñëpp la ñun ñun ñëpp nee na li ciy suñu wàll ñun ñëpp. ngir liñ bëgg mën am. ngir liñ bëgg mën am. kenn ku nekk ci ñun. kenn ku nekk ci ñun. na jàpp ne. na jàpp ni. moo tax mbir mi dox. moo tax mbir miy dox. su teyee loxoom dootul dox. su teyee loxoom dootul dox. su ko ku noonu. su kenn ku nekk jàppee noonu. lépp yomb. lépp dina yomb. ndax itam lii. ndax lii. du yomb. du yomb. am na ay jamono. am na ay jamono. ku waxoon ne mën naa nekk. ku waxoon ne mën na nekk. ñu weddi ko ñu weddi ko. te na gaawaan doon doxe bu njëkk. te na gaawaan doon doxe bu njëkk. moo tax war sant yàlla. nee na moo tax war nañoo sant yàlla. bu baax bu baax. te jàpp lii bu baax. jàpp lii bu baax. ndax lii. ndax lii. mën naa jur njëriñ lu naa jur njëriñ lu kenn foogul. gaawaan ca kanam xidmatul muxtaar ubbil nañu seeni buntu képp koo xam ne doomi gaawaan nga wala def lu baax ñor la ngir nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jëmale dëkk bi nga xam ne moom moo di gaawaan di dëkkub maam Cheikh Anta ca kanam.